waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu uh, sa ñi lay info man suis ngi uh, responsable c'est-à-dire coordinateur départemental des jeunes du Grand Parti à Géejawaay dëkk fii ci commune Sam Notaire plus précisément à Notaire Mor Diaw nag uh, benn jeune la bu nekk Géejawaay def fi cursus scolaire avant muy université après sa maîtrise il a fait le master en politique et négociation commerciale internationale jugee université Cheikh Anta Diop euh, weesu loolu am na bërëb yu bari yoo xam na ni jot ñu fa liggéey euh, ba tey euh, dans le cadre politique également on a eu à syndiquer à l'université Cheikh Anta Diop syndicalisme bi ñu def aussi ñu yàgg a nekk ci association yi c'est-à-dire OCB yi organisation communautaire de base yi fii à Guédiawaye ñu xam ñu fi bu baax ba tey jii ñu jiite ndawal grand parti nga xam ne ni ñoo nekk fii ci Guédiawaye et au niveau national aussi ñu ñu nekk administrateur adjoint national du du parti

waaw xam nga sëñ Bécaye da dafa Guédiawaye dafa nekk lu lu am solo ci grand parti parce que symbolisme lay représenté ci grand parti maintenant par rapport ak tournée bi nga ma laaj euh, grand parti moom xam nga ne c'est la deuxième fois ñuy def une tournée nationale parce que aussi ba ñu jugee ci ci AFP la plupart booleeg yenen sénégalais yi xamné ni dañu amone dañoo non seulement ci président Gakou mais aussi orientation ak vision ak ay vision ak vision am doy ñu né dañ koy rejoindre ñu créer bi parti mu tudd grand parti ca boba daf ñu permettre ñaar benn bi moy ñu wër Sénégal première fois ba ñu Sénégal aussi wax ak sénégalais yi dem ci contrées yi gëna ci Sénégal d'ailleurs c'est l'occasion de remercier l'ensemble des populations du Sénégal qui nous a euh, qui nous ont accueillis à, à bras ouverts boo jugee fu mel ni ronq dem mbiloor dem xor dem mbaggam dem talbaxle bari na ay village yoo xam ne nii tey grand parti teg na fa tànkam ñu won cofeel bi ñu am ci grand parti ak cofeel bi ñu am ci président Gakou bu weesoo loolu aussi première tournée bi ñu def daf permettre rédiger ce qu'on appelle un livre programme livre programme boobu la amélioré programme muy passe programme alternatif le Sénégal bu entamer la deuxième phase tournée euh, tournée nationale grand parti Madame la caravane de l'espoir daf nous permettre aussi de nous dugg ci contrat yi proposer également aussi le programme bi nous xam mi ngi ci donc euh, programme euh, tournée ñaar yooyu la ñu woon bu weesoo loolu aussi vraiment ñu profiter ci occasion bi di remercier l' ensemble des populations comme j'ai dit du Sénégal parce que quand même tournée boobu lu am solo la ci kuy def politique loolu dalay tax nga saafonteeg sa population ba suba si euh, le 24 février 2019 incha allah bu ñu tegee le président gàpp ci bopp réew mi mu mën traduire en acte yenn euh, li mu gisoon te muy nekk ay manquements liés au régime du du président Macky Sall. bon constat bi ngay njëkk a def mooy nit ñi sonn nañu dëkk bi metti na fépp foo laal day metti man je me am na benn village bu ñu demoon village bi mi ngi nekk ci waalu mu tudd Ronk ñu ñëw ci chef de village bi mu toog ñu ne ñu ah seen waa ji de wax dëgg yàlla fii la toogoon kafe gi ngeen naan la naanoon diggéen na fi dem boobu ba tey France di xireen gis ñu dara d'ailleurs sax je je dis que ba ñu jugee ci ci ci boobu lañ ko tuddee ma diggee parce que tout simplement fu ñu dem dina naan seen waa ji muy Macky Sall diggéen na fi dem vraiment gisuñu dara loolu dañuy woon benn aspect bu poli bu population bi di jàppee politiciens yi ñun nag yàlla dafa def valeur yi nga xam ne ni moom la ñu incarné au niveau du grand parti bokku ci ñuy wax lu dul dëgg bokku ci ñuy diggee la xam ne ni ko def d'ailleurs sax le président Gakou boo ko waxee mu ne la man du ma important moy nit ñi dañ leen a rek nit ñi dañ leen wara respecter mais quand même tournée bi permettre nañ ñu gis ne wax dëgg yàlla secteur boo la dans tous les domaines croisés de la vie de cette nation day metti président Macky Sall ay la yéwén dafa échoué sur toute la ligne boo duggee ci population jobaas ak yeneen ak yeneen da ngay gis ne ba léegi femmes yi ñi ngi matu di teg di euh, ñu leen di transporter ci ay saret loolu jaaduwul ci réewum toll ni Sénégal vingt et unième siècle ak yeneen ak yeneen ak yeneen secteur de la santé de léducation éducation abri provisoire yi kenn xamul lu mu toll yooyu mooy firndeel ni ngi président Macky Sall dafa échoué ci politique loolu mooy euh, leçon biñ ci njëkk a jànge beneen leçon biñ ci jànge mooy population yi kat nee nañ après au delà de l' bi président Macky Sall def président Gakou am nañ ci moom yaakaar mu mën a ñëw jubbanti Sénégal donc ma jàpp na yaakaar yooyu yàlla bu mu tas loolu daal laa xam ne nii nekk na ñaari facteur yi nga xam ne nii jàng nañ ko ci tournée bi nga xam ne nii au niveau national def nañ ko. lu ñu indi. waaw xam nga xam nga fii Sénégal la ñu dëkk kenn ku nekk xam na kan mooy kan comme li ma la ko waxee diggee amu ci li ci am mooy kenn ku nekk xam nañ sa vécu je rappelle que dans l'anderneau politique sénégalais président Gakou moi, nit politique bi gëna constant dans sa démarche je te rappelle depuis 1997, il a créé le centre gauche au niveau du parti socialiste centre gauche doit être jii grand parti c'est d'obédience sociale libérale c'est le centre gauche pour te montrer sa suite logique hormis ça ba démissionne, démissionné vais tech parti continuer dama lay wax le président Gakou ak le bokkal parti les grand parti l'un de partager, les valeurs et c'est ça qui est important et les sénégalais xam nañ loolu ci loolu président Macky Sall mii digoon leen ba échoué un homme de la dimension du président Gakou bu ñëwee dina saafara seeni mais amul nous lu ñuy diggé té itam lepp lo xamné ni def nañ ko comme constat moi personnellement je prends note personnellement je fais le suivi mais au-delà de ça le président Gakou ci bopam mo koy topal bopam ba une fois au pouvoir nous allons résoudre les euh, euh, répondre aux aspirations de ces populations là. le parrainage quand même euh, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des militants et responsables du grand parti au niveau du Sénégal des profondeurs au niveau de la diaspora mais au niveau également de la région de Dakar on a atteint plus d'un pour cent c'est une fierté à plus de deux mois du dépôt du parrainage euh, alhamdulillah, grand parti se porte très bien. Actuellement, on est au niveau de la phase de saisie. Saisir les les données et fichier électronique comme fichier physique nous ñu déposer donc c'est l'occasion j'ai dit de remercier l'ensemble des responsables du grand parti parce que quand même liggéeyu parrainage parce que nag parrainage est une formalité parce qu'un parti qui venait de naître plus de 300 000 cartes a une adhésion massive des populations donc il y a 65 000 signatures euh, c'est pourquoi vraiment c'était une formalité et les populations l'ont montré mais surtout les responsables à la base aussi montré que c'était une formalité donc je vous rassure que le grand parti a déjà terminé son euh, le parrainage et Inch'Allah, dans les jours à venir nous def bu parce que xam nga euh, dama rappeler une chose Gaku, depuis plus de 20 ans il est à guedjaway Gaku, kuko deg, deg ku son nom et son image est collé à la ville un jour dans sa maison il m'a dit "Mort, j'ai pas d'ambition forcément à Guédiouaï, mais plutôt des intentions des intentions nobles yu muy traduire toujours en acte de ko population à chaque fois amul ben a ruqaat de ci président Gakou amul action bu sur tous les plans au niveau de la santé au niveau de l'éducation au niveau euh, du sport au niveau de la culture il fenn a dans les domaines bi nga xamné ni mi ngi intéressé doomu président Gakou def fo donc plus de 20 ans ku parce qu'il a une histoire avec cette euh, euh, ville de Guédiawaye euh, moi qui te parle j'ai eu quand même l'occasion de d'être dans des organisations communautaires de base comme le Malawa. wax OCB président Gakou la xam chef de quartier président Gakou la xam imam président Gakou la les populations ci sen président Gakou la donc président Gakou wa population Guédiawaye mënuñu ko wéddi parce que seen deret la ben ñaareel bi aussi depuis plus de 20 ans comme li la wax il a mené des actions nobles ya nga xamné ni euh population yi duñ ko mës faté fàtte tax donc mënuñu ko bàyyi. soo ma waxee loolu dama jaaxal. Hum. xam nga Gakou tamit dañu wax dëgg. législative yi ñu jógee rek Gakou bureau bu mu voté sax dafa gagné kon Gakou moo dugg Guédiawaye léegi Guédiawaye keneen la ñuy wax mais waxuñu Gakou. waaw loolu pour tontu la ci déjà Gakou bureau bi mu voté moko ko gagné centre bi mu voté moo ko gagné Lolo c'est clair mais euh lolou sax tontu la rek parce que da nga né bureau bi dañ ko gagné mais je vous assure que non seulement da koo gagné mais au la main mais bu weesoo lolou au-delà de ça je vous dis xam nga président Gakou élection yu mës a dem Géejawaay yépp élection yu normal da ko gagné sous la bannière de mom mu jité liste fi à Géejawaay da ko gagné législative yi ngi may wax c'est tout sauf une élection yow ci sa bop mi way xam nga ne les législatives ont été biaisées carte d'identité yi nit ñi jotuñu ko heure yu leen neex lañu ñu bureau yi heure yu leen neex lañu tejj bureau yi ainsi de suite ainsi de suite c'est des élections qui ont été volées gis nga déjà au niveau du département de Dakar Goudi, Goudi, Goudi, Goudi, lañu ñuy doog a résultats. résultat yi donc élection législative c'est tout sauf une élection donc mun ta nekk ci man baromètre buma ma naan la président Gakou gagné na wala perdre na mais une chose est sûre président Gakou candidat à l'élection présidentielle Guédiawaye nous dem di voter kenen, ku dul seen c'est sûr et certain et moi je suis rassuré parce que li gis ci population Guédiawaye à chaque fois fu ma d'ailleurs l'opération Sapalé, la semaine passée c'est-à-dire ah, quand on a terminé le parrainage on s'est dit que am na ñu nekk ci kër yi ñi nga xam ni ñi ngi téye carte di xaar président Gakou wala ndawam mu ñëw parrainer leen ñu ne nañu def opération avec plus de 100 jeunes nous watch sur le terrain fu ñu dugg da nga ne ni wuñ leen woon dañoo ñëw jël carte ñu par ne ñun président lañ doon xaar carte opération aussi dañ ci président Gakou si toutefois que mu taxaw élection di population de Guédiawaye ñoo koy fal. parce que je rappelle que hormis le fait qu'il a une histoire avec la ville président Gakou dafa nekk doomu Guédiawaye nekk deretu Guédiawaye